marhaban politique ak tension bi ñu nemmeeku ci biir réew mi ñu ngi woy ba tey dina dang ci xëtu yi témoin quotidien koy jëbbal waa société civile ñoom waa Pastef bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi daal di nañuy lim ci nguur gi daal dina ko yëkkati jamono jile tembe teg ko ci seen kaw mu bokk ci bu ñu sukkandikoo teg loxo mi ñuy teg di maanaam arrestation yi tëj bu ñu leen di tëj ci biir kaso yi wàllum harcèlement xoqotal waaye itam seen ay militant yu ñuy ñuy faat ak ay kaddu yu tukkee ci jegeñaale nguur gi yuy sàkku ngir ñu faat Ousmane Sonko ñoom waa Pastef daal nañ ci lim itam seen ay manifesté ya nga ne dañ leen ci seen parti bi di Pastef Biram Souleye Diop ak ñu muy àndal daal nañ ci naqarlu jaay doole ak sinjali beneen gouvernement bi di sinjali jamono jile tembe mi nga xamante ne bu ñu sukkandiko ci ñoom lenn rek moo ko tax a jóg moo di fexe ba Ousmane Sonko bañ a bokk ci 2024 yi bés bi la jour nañu waa Pastef fas wu ñu yemale seen xeex ci terrain bi loolee waral bi le parti Ousmane Sonko fas jël seede kuréel yu taxaw tem di aar ak yelleefu doomi aadama yi jëmale ko ci li leen nguur gi di teg jamono jile tembe ci ab document juróomi page la bureau politique bu parti Pastef les patriotes daa di naqarlu méttiti leen gouvernement bi teg jamono jile tembe ak campagne jëmale ko ci ay kàddu yu dëppwut ak dégg yi jëmee ko ci ñoom ci jojule jamono yéene kaay libération mu ngi xam le nii ginnaaw manifesté ñu doon amal fale ci Mbàkke lu tolloo ko juróom benn fukk ak juróom ci ay doomi aadama daal dinañ leen fay teg loxo mu bokk ci ñoom ñeent ci ay élèves ña nga xamante ne daal dinañ leen defere ni ki dëmb caltine gi ci wàllum politique ba tey yéene kaayu enquête ab jiixi jaax bu ñu nemmeeku ci yenn ci ay allié wu benn bokk yaakaar jëmale ko ci présidentielle yi moo ko yiital suñu naataango yi nañu ginnaaw bu ab ci candidature président Macky Sall ndaxam dafay laajaat ba yenn ci ay parti ya nga xamante ne jàpp nañ ne ñoo fa ëpp doole daal di sampub laaj jëmale ko ci ëllëgu benn Bokk Yaakaar parti socialiste bu ñu sukkandikoo ci enquête daal dinay engagé débat ba waa LD itam daal di sampub laaj ci jamono jooju nag secrétaire général bu AFP Moustapha Niass moom daal dinay feddaliwaat kóllëreem ci diggante mag président Macky Sall ak bii la coalition Benno Bokk Yaakaar yéenni kaayu critique moom mu ngi mel ni kuy artu di xamle nii fu ñu jëm ak réew mi ci bi di wéy di gën di yékkate nag ab menace bu jéggi dayo doon ci réew mi di Sénégal bu weesoo xëccoo mi dox ci diggante opposition bi ak pouvoir bi jamono jilee tembe am na lu ñëw daal di roofu ci diggante ba di abu noonu mi tabbi ci diggante waay politique ya nga xamante ne écarté wuñu sax jaamaarloo ngir mën a aar seen bopp bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi yéeni kaay li ko soxal moo di kaaraange gi ci tali di maanaam sécurité routière suñu naataango ñeenti fan ci wérum janvier ak léegi daanaka accident yi tee lañu gën a bëri rax si itam ay bakken yaa ngi wëj di rott ci kaw tali yi